une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla ñu jënd bi sallallahu alayhi wa sallam sant Seexul Xadiim noo ngi am mbégte leen nuyu turu commission culturelle bi nga xam ne moo nekk ci biir daayiratul muxsiniina wal muxsinaat ëmb mbooleem sëti Sëriñ Mahmoudan yi ñoo ngi jiital ci nuyoo bi suñu kilifa yu baax yu tedd yi di sëriñ Seex moom sëriñ Mahmoudan ak mboolem ay rakkam di jaarale ci nuyoo bi sëriñ Jiili Abdul Qaadir mi nga xam ne moo teew ci jataay bi ak soxna yu tedd yi soxna Waara Mbàkke ak soxna Amidan Mbàkke di leen siyaare bu baax di siyaare tamit mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew ñoom ñépp ñoo ngi leen nuyu di am mbégte ci teew gi nga xam ne teew nañ ko ci bis bi mbooleem ñi fi teew ñëpp jógee ci ay barab yu sori yu fasanti ko ñëw ci bis bu màgg bi nga xam ne amuñu bis bu ko gën a rëy ci ñun ñi nga xam ne Serigne Mahmoudan moo ñu jaboote ñuy sant yàlla bu baax di ko gërëm bu baax ci suñu borom may gi ñu may ñu fekkee waat ko te bis bii di bis boo xam ne bañ ko dalee taxawal ba léegi léegi mu def ay at ndax ren jii la ci ñaar ñaar fukki at te mel na at rek lañ ko def te mel na at moomu la ko waral ñëpp xam nañ kon dañuy sant suñu borom bu baax a baax bi ñu suñu borom baaxee bis bi bu ñëwee ñun ñëpp ñu ànd di ko gàttandoo màggal Touba Leral te amoon ci ndigal ndigal suñu kilifa di sëriñ Ahmadou Mbàkke di ñaan suñu borom dolli ay leeram ci ngëneel taas na ci barke njaboot gi yépp nag taxaw takku fas yéene jëmmal li nga xam ne mooy li fi sëriñ bi bàyyi woon di sëriñ Mahmoudan te at mu jot nag ñoom ñëpp ñu gën a am mbégte di gën a am cawarte ci taxaw foofu di taxawal guddi gi di indi ay waxtaan yu am solo yoo xamante ne ni képp ku fi ñëw da nga fi jëlee njariñ ay borom yi xam-xam yu baree bari ñu tànn leen ñu jaar fi tey jii nag yàlla dogal ñu tànn borom xam-xam bu mag ñoo ngi koy nuyu di ko siyaare muy sëriñ Busra Samb di kenn koo xamante ne nii ni ko sëriñ Seex moom sëriñ Mahmoudan waxee léegi bu ko nuyoo dane ko yow day kenn nga ci kër gi koo xam ne ku yàgg ak sëriñ Mahmoudan la ku sëriñ Mahmoudan fonkoon te fii de sa kër la ñëw nga sa kër kon sëriñ Bouchra ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm di la xam ne ñëw nga ci sa kër goo xamante ne kër goo miin la kër gu la sopp lay bëgg yàgg dégg say waxtaan yàgg ci jariñ ndax ñun de li ñuy ay tur miin lañ fii bu digg waa Mbeera ñëw ko di waxtaan ci sëriñ kon ñoo ngi lay ñaanal suñu borom guddal sa fan te wéral say cër mbooleem li nga xam ne mbokk yi ñu ngi koy séentu ci yow ñu ngi ñaan suñu borom defal la ci tawfeex noonu rek la mbokk yi di tànne waxtu wu ne benn borom xam-xam mu ñëw defal ñu waxtaan ci benn thème tey jii nag thème bi mën ngaa wax ne thème bu am solo la boo xam ne ku ko déglu mën nga cee jëlee njariñ ju am solo xëy na guddi waxtu bi moo tax duñ mën a xuus biir waxtaan wi di ci wax lu bari ndax waxtu bi ñu joxe woon moom dañ koy bëgg a weesu kon ñoo ngi sant mbooleen ñu fi teew di leen wax dal leen ak jàmm ñëw ngeen ci seen barab yëg nañ ñëw gi ngeen ñëw coono yi ngeen daj ak yitte yi ngeen bàyyi yéen ñëpp yëg nañ ko bu baax a baax ñoo ngi leen dalal jàmm di leen wax ne ñëw ngeen seen kër ñëpp ñu ngi leen safoo di ñaanal ñëpp suñu borom fay leen aw yiw di wax sëriñ bi salaam kon ñoo ngi lay déglu rek jërë ngeen jëf sëñ aada jërëjëf bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam awnuka ya muin wa bika nastain wala hawla wala quwata illa billahi alil azim ixwaani axawaati asxaabal maali ayuhal mushaahiduuna alkiraam assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi yéen daairatu muxsiniina wal muxsinaat bi lëkkale sëti sëriñ Mahmoudan Jobe yi noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaare bu baax te di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo bi kii nga xam ni tey jii moo toog ci buntu kër sëñ Mahmoudan bi di sëriñ Cheikh Mbacké di ko siyaare bu baax di ñaan suñu boroom yàggal jotaayam bi mu ànd ko rakkam yépp di siyaare rakkam yi ci ginnaawam góor ak jigéen di siyaare sët sëñ Mahmoudan yi nga xam ni ñoo amal liggéey bu am solo bii ci bis bii nga xam ni màggal yépp am nañ solo de màggal yoon wépp waaye gii bokk nañ ci yépp solo ndax ki ñu koy defal muy sëñ Mahmoudan defaluñ ko ko ginnaawam ci nekkam la jàppoon bis di ci sant yàlla di ci ñaanal ay waajuram di ci sant Sëriñ Tuubaa bis bii moo ko daa jàppal boppam ci barab bii ku mu bokkal sëñ Tuubaa fekk nga ko fi ku mu bokkal sëñ fekk nga ko fi muy jëmm joo xam ni bu ñu delloo rek ci waxi sëñ Tuubaa nga xam ne musta wax dara lu réer moom sëñ Tuubaa mas naa wax doomam ju ñu wax soxna Faat ni ko soxna Faat mu ne ko Mbàkke mu ne ko mbaa doo fàtte sa maam sëñ Moor Anta Sali moo la tudd de bu fekkente ni sët bu jigéen sax baayam dana ko fàttali maamam ci mu bañ koo fàtte naka mu ak sët bu góor kon mel na ni lii ngeen def nii rafetul rek war yam ci daganul yem ci dafa war maam ju toll ni sëñ Mouhamadou ku ko yàlla jox nga xam ne ñeewoo kenn ci baayam ñeewoo kenn ci santam war ngaa am loo ko liggéeyal itam waaye nga tàmbalee ko ci bis bii nga xam ni moom moo ko sosoloon boppam di ko sant sëñ Masamba fii ak sañ Touba ñu ñaan jëmm jooju yàlla na yàlla dolli ay leeram te taas ci barkeem marqué na jamonoom lool moom sëñ Mahmouda feesoon na dell jamonoom te jamono jam nekkoon ràññeeku ca yombul ndax ay doomi sañ Tuubaa la fi nekk lool nekk ndooloon ak i doomi bokki sëñ Tuubaa yépp ñu ne fi muy course boo xam ni course bu bari ay étalon lañ ñëpp di ay sàll ñëpp ràññeeku waaye fexe na fa bokk ci sàppe sa ca kanam sëñ Mahmoudan jamono ji mu dund xarnu bi nga xam ne ci la dund dafa doonoon xarnu boo xam ni ñu baax ñëpp ci lañ daje waaye naka jëkk ci sàppe sa ci kanam la ma sa nekk li Seex Ibra Jóob Masar wax sëñ Tubaa ni ko fa kullu matxin baliixin xiila fi rajulin fa anta saahibuhu yaa ayyuha rajulu lépp lu ñu mën a tagge nit ku baax rek loola sëñ Mahamadan meloo woon na noonu waaye ngeen tànn thème bu am solo muy ana banque yi nga xam ni ñoonu ni nan lañu def ba ci jamono bu xat jamono bu jafe bu dara lu baax yombul ñu fexe ba réussir te tey jii la lépp lu baax gën a yomb tey la réussir gën a jafe tey la xam-xam gën a bari jub gën a jafe tey la wërsëg gën a bari def lu baax dina jafe mboolem lu mu doon rek jumtukaay yi tey la gën a bari waaye def lu mu réussir daal tey la gën a jafe muy dem bu am solo boo xam ne bii illa yi bari na lool cause yi bari na waaye nag lu tuuti mën naa feeñal lu bare bari ñu wax nag ni ci exemple bu Cheikh Massamba Cheikh Massamba doy na exemple ci nit nan la war a mën def ba réussir dama jëlee ab ab murit waaye bépp jullit rek mën ngaa it jël itinéraire ci jëmm jooju di Cheikh Massamba Ba ndax moom wàllu boo xool rek mat na ci exemple mat na ci masala xam ngeen ni bu fekkonte ni kuy wutal boppam ngànt la waroon naa mën a am ay ngant yu bari te kon danañ ko ko nangul waaye mu motiver boppam doomu aadama bala moo réussir wala bu bëggee réussir day xam mooy kan fa man arafa nafsahu arafa rabbahu ku xam sa bopp xam sa borom Seex Masàmba li ko yàlla njëkk dimbalee mooy dafa xamoon boppam xam mooy kan moom ñi mbokkal sëñ Tuubaa ñépp a ko mag ndax li dal yonent yàlla muhammad rek a ko dal sallallahu alayhi wa sallam muy sabaay baay faatu na lu yàgg te feeñoo jamono nga xam ne bi muy baayoo bi muy doon jirim boobu juddoogul mu gane jamono sëriñ Tuubaa yàlla jox yëf yi màgg ko fanweeri at fanweer nga xam ne soxna Fatou mi ma tudd léegi muy taaw Serigne tubaa moo ko mag fuuf magam yu ci bari mat ko waajur ku ne xam na ni ku Serigne Touba mage fanweeri at Maam Mor Jaara mën a laajur Cheikh Ibrahima Faty sax mën na koo jur ndax mage na ko ñaar fukki at mu feeñ di caatum sëñ Mbàkke Mor Anta Sali waaye nag tubaab yi dañoo wax ni le malheur ne vient jamais seul fa inna maal usri yusra jafe gu ne ak jàpp ndal lay àndal ma Massamba turuqi suufi yi nga xam ni ay baayam jaar nañ ci ay magam jaar ci sañ Touba jaar ci muy lu mel ni atijaaniyatu wal xaadiriyatu wa chaziriyatu yooyu yëpp sax ma sàmm moom jotu ci jaar ndax moom yoonu at mi mu feeñee rek ci la sëñ Touba sos maase ak yoon wi bi mu daataa dal jàng fekk nañ jëkk ànd ak sëñ tubaa sëñ Touba gërëm na leen kon kooku li ko mag ñi mage bari na lool waaye ba mu xamee ab ndijooram ak càmmooñam gane adduna ci biir yoon wi ak feeñam ànd ak sosug yoon wi mbiram ànd ak yoonu murit muy màgg yoon wi di màgg ba mu xam ni la xool rek sëñ Tuubaa doy ko doy ko ci léppam tawféex di ko yàlla jëkk defal moom sëñ Massamba mooy nit mënut a ñàkk mus mënut a ñàkk xudwatu nit mënut a ñàkk modèle nit mënut a ñàkk repère nit mënut a ñàkk idole waaye moom ba mu ba mu xàmmee rek xam ku mu war a bëgg ak ku mu war a estimer sëñ Touba rek la daal di teg choc sëñ tubaar rek la estimer sëñ Touba rek la defoon mu idolam mus sa bëgg a mel ni kenn ku du sëñ Touba. loolee nag dal di koy joo ci mu fas yéene xam nu muy def ba bu fekkoonte ni sëñ tubaab mi kenn dana melaat ni moom mu mel ni sëñ tubaa loolu mu di ko laaj boppam nu ma war a mën a def ba su fekkente ni sama mag ji mënees naa mel ni moom ma mel ni moom mu laaj laaj boobu boppam di ko xool mu xam ni tomb bu njëkk bi ku koy may mooy laaj seen tubaay yow bu moo gën a ànd ak yow nu may def mu ne ko tartu asiyaani wa qillatil kalaam doo wax lu yàlla gërëmul te doo mooy yàlla Seex Masàmba ni ko fas naa ko yéene ba ba may faat loolu borom dënn bi dëkk bi doonoon na ko ci mus ta wax lu amul njariñ mus ta mooy yàlla wa qillati shurbi wa qillatil manaam wa qullatil akli wa qullatil anaam néew ak lekk lool ñeme coono lool ñemeb jataay lool bëgg alxuraan lool teel naa mokkal alxuraan ci fukki atam moom Seex Masamba jàng xam-xam ci entourage bi ko wër muy digg xam alxuraan ak xam-xam mu jàng ko ci diggante sëñ ndaama borom daaru bokkam yu baax yooyu nga xam ni mus a jéggi dara lu baax lu mas soxla rek fekk na ko ci biir bokkam yooyu bi mu labalee xam-xam yépp itam mu dese beneen jàng bu mu war a jàng mooy mu jàng sëñ tubaa sëñ tubaa rasulullahi la dégg sallallahu alayhi wa sallam waaye Cheikh Massamba déggoon sëñ tubaa moom sëñ tubaa la jàng moom jàng ko ba maîtriser ko ba bu sëñ tubaa doon leçon mu man koo tari xam nu muy def ba neex sëñ tubaa jàng nu ñuy waxeek sëñ tubaa jàng nu ñuy toogeek sëñ tubaa xam li li li bëggug sëñ tubaa mu xam ko sax ca loola xam na ni sëñ tubaa jaayul du ko jige ku amul xam-xam du ko jige ku neexulum xel du ko jige ku bari nelaw du ko jige ku bëgg lekk du ko jige yooyu yëpp mu jàng ko ba xam ko fas yéene rey ba kanam ba man a doon saahab sahabab sëñ tubaa moo tax wax nga léegi loolu sëñ Ibrahima Diop wax ne in kaana asxara ixwaani xadimi ma an fa inna ahu fa inna himmatahu min akbari himmami ni ko yow de buñ doon toftalee ni ngeen magantee yow la ñuy mujj a tudd waaye sa yitte may na la kuy lim rakki sëñ tubaay yi bu nee diw ni diw rek ni ak Seex Masàmba lu mu dëkk sori sori boo fa fekkee ay murit buñ matee ñett rek kenn ka taalibam sëñ Masàmba lay doon mu ne ci loolu ba sëñ Tuubaa jël ko taf ko ci wetam di def ci moom ay tëjëliyaat di ko wax lu mu dul wax kenn may ko ci boppam lu mu mayul kenn mu liggéeyal sëriñ tubaa liggéey boo xam ne sëriñ tubaa ko ko séereel boppam moo wax ni ma sàmba defal na ma lu ma kenn deful dinaa ko def lu ma deful kenn liggéey bii nga xam ni ci la am ngërëmal yàlla moom sëñ tubaa muy mat bu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu bokk koog moom te la jiitu loolu lépp lu góor di def ci liggéeyu góor muy goy gor ay gayet yett am yett am ñax gor ay xer gas ay néeg doy lépp lu góor di def togg nodd lépp Seex Masamba defal na ko Sëñ Tuubaa ba bi mu yeggee ci war a toog di ko bindal wax na ni liggéeyal na sañ Sëñ Tuubaa fanweeri at yoo xam ni fan fukki at ak juróom njëkk yi su ma yeggee suuf damay julli fukki at ak juróom yi su ma jógee taxaw damay julli daana wax ni sama xel mu sa xalaat reer suñu ko tëdd ndax waxtu nekk ay ndawam dañ daan ñëw ci man kaay yu Sëñ damay faral di wax nii bi fi sëñ bii nekk fu sëñ Tuubaa toll kenn daawu ko wax ku yegg si da nga naan ana Seex sàmba fu mu nekk ñun la ma nga ca barab sàngam nga dem fa toog xam nga ni boo fa toogee léegi sëñ Bamba yëg la ndax léegi ndaw bàyyi ko ci sëriñ bi ñëw fi moom di ko jox si dara wala mu di ko woosi bu ko defee bu jógee topp ca bu demee ni ko diwoo ngi fi su fekkee ndaw la ndaw lu ñu yónni la bu demee ni ko neel sëñ bi diwoo ngi fi waaye ku sëñ bi teel laa yëg fa Seex Masamba ngay nekk sëñ Tuubaa dimbali ko teggil ko jafe-jafe yu bare bare bare yoo xam ne ñoo gàllankoor nit ñi ci mën a takkook sëñ Tuubaa muy mën a yàgg ak laab ak mën a mën a toog lu yàgg te doo lekk dugub ak mën a toog lu yàgg yàgg yàgg yàgg mën a nga xam ne am njàpp da ci julli fajar julli ca gee wala nga julli ca gee julli ca fajar yàlla defal ko loolu lépp ci barkeb sëñ tubaa ndax sëñ Touba lépp lu mu lay def loo day ànd ak lépp luy tax nga man ko yàlla may ko kattan ci jataay may ko kattan ci mën a sàmm ak laab ak man a takkoo ab xiif lu yàgg te du ko yëg waaye loolu lépp ànd ak jikko ju rafet fa mu tegoon sëñ tubaa fa la tegoon mboolem ñu bokkal sañ tubaa ndax ñépp a ko yéeg ci saa yi bu ma saana gis Seex Ibra Faati da koy bës ñëpp dongo di def kilifaam da daan bës Seex Ibra Faati bu daan siyaare borom Daaru Muxti bu yeggee ci kër ga ñëpp xam ni sëñ Masamba ñëw na ñépp ko xamoon muy waddu jigéen ñi di leen mayub xaalis ndax moom dafa tabe woon door a yegg ca magam lu baax ja noonee mu meloon ak sëñ sëñ sëñ mel koog Cheikh Ibra Faati noonu la meloon ak sëñ Gaawaan noonu la meloon ak sëñ Cheikhul Afiya noonu la meloon kër sëñ Balla Coro ak sëñ Cheikh Coro noonu la meloon ak sëñ seex ab Magam ja noonu la meloon mboolem ñu bokkoon Maam Maaram kenn ku ci nekk xamoon na ni kilifaam nga nangu woon na ñu yilif ko de waaye kenn gën ko sëñ ma sa moo tax sëñ Mahmoudam Jobbe ku bari lu mu nuru sëñ ma sàmm baayam la muy kilifa waaye nangu kenn ku la gën bu fekkee jëf lu baax ak wax lu baax ak yéene ju baax ak sax ci lu baax mooy tax a baax kenn du la noonu rek la meloon sëñ Tuubaa wóolu ko lool mu bokk ci li tax mu mu mi am li li mel muy am jom am jom gis nga boo dee xulóog borom la wu rëy mu di la xas nga di cell mu di la xas lu ne mu wax la ko lu bon lu ne mu wax la ko néegal ba mu ni ba mu ni cell rek nga ne ko yaa ñàkk jom boo ko ne yaa ñàkk jom rek lu mu la waxoon rek wax nga ko lu ko gën a bon sëñ Tuubaa nee na du ma dimbali ko amul pas-pas du ma ramm ku ñàkk jom Seex Masamba dafa am jom bu ko neexoon ni yàcc ndax ñépp ko mag gisul bàyyam mag jum dem ci yow fas woo baax la jox ko ko mu yóbbu magam june bu la gis léeg-léeg dara ni li bëgg naa ko dootoo ko bëgg muy wër ci kër magam yi du am kër du mel nen waaye mu am jomi boppam fexe ba xaadimul Mustafa mi nga xam ni ku mu gërëm yàlla gërëm la mu fexe ba am ngërëmal sëñ Touba am ko ci coono am ko ci liggéeyal sëñ Touba ndax sañ tubaa du waxe ba kanam du ragal kenn ginnaaw mu di ko liggéeyal liggéeyal bu jafe liggéey bu metti di ko jàngal ay xasida muy dégg bari na koo dégg ci biir kër tubaa Touba seex ma Massamba Mbacké ko fi indi ndax daana dox ci ndigalal sëñ tubaa ndax moom ab doxam amoon na njariñ ndax ku ko mas a gis rek gis nga lu bokk ci sëñ Touba ku ko mas a gis rek jàpp nga ni gis nga sañ Touba ca na mu mel ndax yàlla dafa atte mu nuroog moom ba noppi di ko roy ci dolli li sëñ Touba def yonent bi nuroog moom ba noppi di ko roy di ko liggéeyal ba noppi di ko roy Seex Masamba itam sëñ Touba la gën a nuróol ba noppi di ko roy di ci dolli ko mas a séen sëñ Tuubaa nga gis fu mas a aw nit ñi dañuy def ak lox dagg topp ko mu bari xam-xam lool ñemee défi ñemee défi ñàkk complexe bépp dëkk boo xam ne bii dëkk bu dul dëkk murit la Seex sàmba dem na fa julli ca seen jàkka ya dajeeg seen borom xam-xam ñu gis ko bëbb gi ci moom ak leer gi ci moom ak xam-xam bi ci moom ñooñu daal di xamlee xam ni ah kii kat rakki sëñ Bàmba la jom jooju mu am ba mës a doyloo jekkuk ay magam mës a ni yàcc bàyyi boppam xanaa lépp lu ñu am ci sëñ Tuubaa mu fexe koo am muy ngërëm ca ba mu amagul ay tool amagul ay daara amagul ay dongo la fas yéene la mu man mu di ko defal sëñ Tuubaa mu di polet ab xat di sosol sotal sëñ Tuubaa ay xalima ba sotal na ko cent vingt quatre mille plumes téeméeri junni xalima ak ñaar fukki junni ak ñeent ma Massamba sotal na ko sëñ Tuubaa ba bi mu ne am dara lu mu am jox ko sëñ tubaa sëñ Tuubaa di ko wax itam li gën a sori ci biir xolam bari na xasida boo xam ne gii ba ko sëñ Tuubaa bindee mu tooy xit ci loxoom la ko jëkk ni ko Masamba nett li ma way wii nett li ma lii sëñ Masamba di ko nett yi di ko way ca baat bu neex ba te du tàngal sëñ bi di ko wax ca maxaari ju uróof bi sëñ Tuubaa mel ni ku toog ci machine di def këliñ këliñ di yëngu bu ko nee Masamba xiif bu taxawee la mu denc araf yooyu yëpp sëñ tubaa wax ko moo tax li mu bind ci manaaxib bi sëñ tubaa ëpp na ab kaani li mu ci bind kurul moom moo la gën a xam sëñ tubaa seex bi faati daana wax ni seex na sàmba suñu rakk jii ku nanguwul mu gën la danga koo xamul ndox lu ñëpp dem nañ ba ba ko fa mu des fa rek moom sëñ tubaa di tëjoog moom di wax ak moom di ko wax di ko dox sëñ tubaa sampoon na ko ci ñàkkam itam ndax daana wax ne ku fi indi lu muy joxi na ko joxi ma sàmba ku fi indi lu muy laaj na ko laaj ma sàmba ku ma sàmba neexul na ma abal dëkk bi waxuma ko yàllaa ko wax loolee ca la sax ba noppee gis sëriñ Tuubaa ndax dafa daal di jaaxaan déedéet dafa topp Cheikh Moustapha te moo ko mag ci zahir ñu bokk lépp ànd ak moom àndi mu rafet xam ni moom bu nangoo ñëpp danañ nangu ndax bàyyi la aalim la aarif la fóore la te am na ngërëmal sëñ Tuubaa mu jaayanteeg seex Moustapha Cheikh Moustapha fonk ko lool waaye yàggul daanaka 27 ak 41 Cheikh Massamba dem mook bàyyam sëñ Mbàkke Mor Sali ñoo tolloo ak dund 61 naa la fi am moo tax sëñ Ibra Diop Massar wax ni sabbal xayri la dund saat ak alif saat ak baa mu 62 ans loolu la fi am yoo xam ne yii fu mu mas fekk njàqare wuññi ne ko fu mu mas fekk soxla faj na ko bëgg mbokk lool bëgg lu baax lool bëgg diine bëgg xam-xam noonu mu mel itam doomam yépp noonu lañu ñu mel waaye nag tàgg ju ne am na jàppal diw borom dëkk bii day baatul na ci nuru gu mu nuru Seex sàmba ci léppam ndax moom day lépp lu baax muy sëñ Mahamadu ni da koo teele kon bokk na ci mag ñi leen taxoon a réussir muy teel a jóg doo nekk ba ñëpp raw la nga door a jóg da ngay jóg ca teel alifa nusuka wal ibadata wal xilwata tiflan wa hakasan mujabaaw Seex Masamba dafa teel a jóg waaye borom dëkk bii dafa teel a jóg bari na ku réussirul te sa départ nga échoué ba nga waree jóg nga jógul Seex Masamba dafa teel a jóg waaye borom dëkk bii dafa teel a jóg keroog ba ko nijaayam Samba Ayib jiitalee indi ko fi borom Touba Xaadimu Rasuul ni ko ma dana ngi mokkal na te sëñ Touba ko dana loolu ndax moom tawféexam mooy taawi njaaree bi ci la bokk amada sa bi sëñ Touba jógee Jolof ñëw njaaree rek ci la feeñ feeña Touba di ko wax ko sañ tubaa mu tànnal ko turam wii di Muhammadan dalal ko alxuraan mu mokkal ci yées juróom-ñetti at mu mokkal alxuraan at yi tuuti lool jëmm ji tuuti lool nijaayam sàmba indi ko fi borom Tuubaa ni ko Muhammadan bi yaa ko doon alxuraan mokkal ma sëñ Tuubaa di ko tariloo muy tari mu di ko tariloo ba ci alif alif lam mim saat ca la bu ja taree bi mu yegsee ci wa aaxiru da'waahum an alhamdulillahi rabbil aalamiin sëñ Tuubaa ni ko Muhammadan baax na ni ko waaw góor sëñ Mahmoudan bi mu amagul fukki at la dégg waaw góor yi borom Tuubaa waaw góor yi sëñ Bamba muhammadan wàcc nga maa ci des daal di dajale ak njabootam moom sëñ Tuubaa ne muhammadan mii de maa ko jur ku def ni moom maa la jur ku def ni moom juruma la kon kooku dafa teel a jóg départ bu baax mooy loolu yàlla may na ko ndey ju baax benn bàjjo képp la ci ndeyam waaye mu xam mooy kan xam mooy kan xam ni sëñ Touba mii ak Cheikh mii ak sëñ Gaawaan ñoom ñëpp kenn ku ci nekk sa mbokk bokk ngeen lu dul mbàkke ji ku ciy baayam itam di nijaayam wala ngay leneenam muy mbokkum ñu wax ñëpp di mbokkum yéen ñëpp mu jikkowoo jikko yu rafet jikko yu gor di borom muru ah borom mbañu murus mu sëñ Mahamadan Jobe ku xam nga ko war xam mooy kan xam yu baax yi la ca gën mu taxoo ko bi mu jàngee alxuraan ba mokkal ko dem gede ci aalimi soodaan ji di sëñ Mbàkke bu sa dënnu ko ba ñedd ko door a dem kër mu Abdou Seye jàng xam-xam ba bari xam-xam maa ngi fàttali ko ma sama toog fii ci penc mi di waxtaan ci sëñ Masamba si tuuti Baye Mbaye Seye rahmatullahi alayhi yàlla ko yàlla yërëm dawee ci biir kër gi dikk fekk ma ma taxaw yor nii ma yore rajo bi maa ngi toog ci tribune bi mi ngi ma mel ni tey mu daal di ma sa Moussa Abdoul alma alma alma rajo mel ni ko am toog sagoon ma daal koy jox micro bi mu ni mbo mbooloo mi seen gi wii suñ kanam moo dox suñu diggante ak sëñ Mahmoud bu nu seppi woon seen gi ñu rek gis ko mu ngi nii toog di déglu waxtaan bii Bichri di waxtaan nee na kurul sañ Mbakke sëñ Mbakke taawam ba mayu la nga ñàkk fekk fekk Bichri fii mu nekk déglu lii mu wax ci sëñ Massamba barke borom Tuubaa billaahi gaa yëpp ñoom jiile gaa yooyu yëpp dafa war nañ dañu fa gisee seen tànk waaye dañoo daal di mujj rek fekk ma fii ci dugub bi ma leen ah par force lii de moom neexul woon ci kenn borom dëkk bee ko wax te ko ma fekkul fii mu génneel dëkk bi ndax dëkk moom moo ko moom jëm joo xam ji lépp lu muy def da teel a def teel a am jom teel bari xam-xam a sanc ay dëkk bii ñu tudd léegi muy jigiñ ba mu koy sanc dafa façon ñee ne waaye dëkk ba xat moog sëñ Mbàkke Madina mi nga xam ne ñoo nuroo lu bari digaloo fa ay tool suuf sa xat mu bàyyee ko sëñ Mbàkke Madina dem daalu Karim waaye xam ne fii dëkku bàyyi ma ba yàgg mu ñëw fii ci àll bii nga xam ne bi mu fi ñëw fay faa la ab gott la di xéer bu àll boo xam ne bu dara dafa fekku loolu ay gar ay garab ay jinne ay masuur saawos nag rek la fekk fii moom sëñ Mahmoudane mu fas yéene ci barkeb sëñ Tuubaa sañ ma sàmba feeñal teraanga yi yàlla nëbb ci biir suuf si mu liggéey ba génne ko ci kaw suuf si muy jumaa ji ak lu ngeen fi gis ne fii booba dara amu fi ku ne xam ne ni sañcu dëkk yaa fus du ko def ku gëmul yàlla du ko def ku bëgg noofraay du ko def ku yàccaaral du ko def ku wóoluwul yàlla du ko def ku amul xam-xam du ko def ku ne xam ne ni àll bii pëng du fi ñëw borom bopp kese du fi ñëw mu ne fii dëkk bii ku ne fekk dafa sëñ Mahamadou Ndiob am na at moo xam ne sax sëñ Abdou Lahad moo wax magi bar sàq ñi muy ñi fi desoon ci waa bar sàq nga xam sëñ Tuubaa leen yoroon nga xam daaw lu génn fenn sëñ Tuubaa sëñ mu Abdou Lahad leen dem leen gane gi sëñ Mahamadan Jobe magi bar sàq sax dikk nañ fii gane si sëñ Mahamadan ñu mbokkal sëñ Tuubaa ñëpp fekk nañ ko fi ñu mbokkal sëñ ñëpp fekk nañ ko fi autorité yi jamono ñëpp fekk nañ ko fi Abdou Diouf ñëw na fii maa fekkee ministre yi d'état yëpp ñëw nañ fii booba kilifa yëpp fekk nañ ko fii dëkk bii foofu teg sa tànk doomi sëñ Tuubaa teg na fi tànk rijaalan wa niswaanan góor ak jigéen ñépp ko daa fekk fii muy jëmm joo xam ne di wax ja bëriwul woon waaye bokk na ci li ko may li mu amoon muy teel a jóg ak rafet jikko ak am njom waaye li tax mag ñi réussir te ñun lu ci ëpp ci ko rey du ñu muy une éducation matrimoniale lañ wax une bonne éducation matrimoniale loolu dafa nekkoon ci mag ñi ne ko ci ñun mooy xam nooy dencee nooy sampe kër tàmbalee ci kër yu mag ya laa la wax ba ci këram bii doomi sëñ Tuubaa yi koo ma ci wax ku ci gën ndey boo ci xamoon ku ci ndeyam gën rek ma wax la ki ci gën ñàkk a xam ku ci gën ndey tax mënoo ni diwa ci gën man nga ni diw laa la génneel diw ci laa jublu diw laa ci waaye doon teg sa loxo ci kaamil ni doomi sëñ Tuubaa yi di ko dale ci Cheikh Mahamadou Moustapha ba Cheikh Mahamadou Moustapha jiwa ci gën doo ko wax li tax xamoo ki ci gën da ngaa xamul ki ci gën ndey boo xamoon ku ci ndeyam gën nga xam ki ci gën waaye mag ñi la taxoon ñu réussir mooy dañoo topp leen seen bakkan ci sab binu kër dañ daan seet fa ñu war a tàbbi ñu tàbbi fa waaye léegi nag li ko li tax réussir du yomb ndax góor ak jigéen ñoom ñaar rek ay ànd jur doom soo àndeek sa soxna ba ngeen jur doom ngeen taxawal ko fee jàkkaarlook moom kenn ci yéen ñaar du man ni fee laa tàmbalee ci doom ji fee laa ca yem yow soxna si yaa tàmbalee fee yem yéen a bokk jur doom jépp doom joojee nag faw day am loo xam ne ci ndeyam day influer ci moom bu ko neexee bu ko naqaree am loolu ci baayam day influer ci moom bu ko neexee ak bu ko naqaree al wal biatu ayuhuma ashadu taasiran an al insaan donc faw ndey mag bàyyi kon ku ne day jeexital ci moom waaye mag ñi dañoo tëpp tëpploon seen bakkan ci denceenu soxna dañ daan seet fañ war a dugg ñu dugg fa jël jigéen ñu tolloog ñoom koo xam ni kii loo war a bañ da koy bañ loo war a xam mu xam ko waaye boo doon dugg ci kër doo doomi kilifa yi mokkal alxuraan mi ngi fi ba tey de waaye boo doon seet gone gu mokkal alxuraan nangoo dee soxna su mokkal alxuraan déedéet bareetul de mag ña nag dañoo mokkaloon alxuraan seen ndeyee mokkal alxuraan seen nijaayee mokkal alxuraan ay stratège lañu woon sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul da ngay xool këram gi soxna Anta Njaay Mbàkke fa jiitu Seydatuna Jaaratullaahi soxna Faati Isa soxna diw soxna diw ba jox soxna Isa Jóob gar gomaay ga fekk leen dañ daan jël jigéen ñu natt ngoog ñoom loolu moo tax ñuy jël seeni doom poraatum soxna poñatum dara doom rek am loo baax baax baax boo jëlul sa soxna doo jur sa doom jigéen itam boo ko yaree jàngal ko jàngal ko alxuraan ba mook nga jox ko am xaalis te amul diine amul ngor amul islaam yi du ci am doom bu baax doom du baax jigéen ju baax koy jur waaye ci góor gu baax la koy jur doom ju baax góor gu baax koy jur waaye ci jigéen ju baax rek la koy jur kon bu ñu bëggee ndax yett kat ci ndey lees koy jëlee muy xel ak wërsëg ak taar yett ci bàyyi lañ koy jële kàddu ak bayre ak kàttan kàddu fi mu ne aw góor ak jigéen sax bu ñu bokkee bàyyi ñu am xaafa dëgg dëgg dëgg bu nit waxee rek ñu ne kooku doomi jiw la kàddu ci bàyyi nga ko jëlee bay rek barke ci bàyyi nga ko jëlee waaye kattan itam ci bàyyi nga ko jëlee waaye taar ak xel ak wërsëg ci ndey nga ko jëlee mag nga dañoo nangu woon a denc jigéen ña nga xam ni dañoo amoon ay vertu seen néeg boo xam ne bii néegi muñ kat lañu seen néeg yoo xam ne yii néegi xel lañu seen néeg yoo xam ne yii néegi fidélité la ñu waaye léegi ak ku la mën a jur ak noo mën a mel ak fu ñu la mën a jaarale ci ay coono boo doxee ba gis ka la neex rek jël ko loolu nag déjà échec la boo xam ne bii doo mën a fexe mukk ba sa doom mel ni yow sëñ Mahmoudan Jobbé ak ay la ay bàyyi taxam sëñ Touba mag ñooñee kenn ku ci nekk sa doom ju ne xam nga fa ko tànnee xam nga réalité yi tax nga tànn ko kenn ku nekk ci yéen que la jur rek nga bëgg mu jur la kenn ci bëgg ta wecc ko sëñ Mouhamadana génn góor kenn bëgg sa wecc ko ndeyam a génn góor lo nde génn jigéen loolu la ñu suñu waajur loolu nag lan teg ca suuf éducation matrimoniale ëpp naa négligé dañ ko dellu si waat soxna jaaratullaahi mariama radiallahu anha su fekkonte ni ba ko soxna asawaaru mbàkki juree yar ko jàngal ko jàngal ko xam-xam jàngal ko liggéeyu jigéen jàngal ko togg jàngal ko tontu jàngal sóob ko ci ngërum tasawuf ba matee dem kër buñ ko joxoon labdu yi ca fuuda fuuta wala ñu jox ko buur yi ca fuuta du jur sëñ Bàmba mukk ci dañ koo jox sëñ Mbàkke moo am kon li tax nous ne pouvons pas réussir mooy nous avons échoué éducation matrimoniale nañ delluwaat ci sampinu kër seet ka nga war a jël di jël jigéen doo xam ji am na background bu baax jigéen ñi di tànn borom kër bu baax borom kër boo xam ne bii bu yomal xiyaamatee da nga bëgg a dekkee ci ginnaaw ndax wërsëg yi day toxu rek moo gi yooyam te wërsëg seexluwul kenn seexluwul yëfër seexluwul moykatu yàlla seexluwul dof seexluwul baadoolo seexluwul ku bañ sëñ Tuubaa wërsëg moom seexluwul kenn waaye am na yoo xam ne yii ku bon du ko am mukk kon nañu seetaat fanu suñu waajur ya jure ñu dellu fa wut ay soxna loolu sax mi ngi feeñ ci kër yi kër yu mag yi ndax boo gisee kër yu mag yi gone yu ndaw ya fa mujj juddu nga xam ne ci barke lañ juddu du yaram mukk ña nga xam ni ñooy taawi kër yi nga xam ni mag ñaa mag ñaa leen sosoon ñaa sampoon seen kër ya mag ñaa dencaloon seen taaw ya mën nañ leen ëpp xam-xam de gone yi man nañ leen ëpp xam-xam de ndax njàng bees bi mën na leen ëpp ay pexe de waaye du man a fexe ba mel ni ñoom te lay jig taaw yi du jig caat yi ndax soxna yi ñoo tax kon nañ góor lee góorgóorluwaat ñeme coono nit ñi nag xaalis rek lañ dul doyal ci ji jamono loolu itam bokk ci tax duñ mën a réussir waaye duñ mag ne dañ daawul doyal tuyaaba duñ doyal lu baax lu baax luñ ca am xeet nañu ko da nga xool sëñ Mouhamadan fukki at ak sëñ fa fukki at yi sëñ sëñ Fallou Mbacké yu jëkk yu mujj yi mook moom a ko ànd fukki fukki bi muy toog bi muy toog ci jatu jarub sëñ Mahamadan bii jarub sëñ Masamba bi moom sëñ Mahamadan bi muy toog ci jarub sëñ Masamba bi nga xam ne moom ak ci jabootu sëñ Masamba gi ànd na ci sëñ Fallou fukki at sëñ Fallou door a dem àjjana mu ànd ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñaar fukki at ak benn yoo xam ne yii lu ñuy sase te ñu ñu jëkk a topp bi aw sas lay bokk luñ ma ci liggéey ci yoonu sëñ Tuubaa yi rek bu nu sasee waa kër Thierno rek ngi waa kër sëñ Massamba sëñ Mahamadan ba ma xam ne kër sëñ sàmba gi ba mu taxaw ci sàpp su dëkk kër sëñ Touba gi bi ko sëñ Blaat di liggéey loo ñuy liggéey rëddal ci waa kër sëñ Massamba sa su ma sa ñëw ci kër sëñ Massamba dañ koy évaluer ne lu mu war a doon bu dee fukki million mu ne def naa juróom yi man na fi nekk ak sëñ Massamba ne samay rakk ñëw leen ak samay doom bu ñu dikkee bu matee baax na bu matul mu matul li lépp jox la tur këréw sañu sàmm xel koom bu dee tabax yi bu dee liggéey yi bu dee ruuj bi bu dee gor mi lu mën a doonul buñ sasee sas sañ Mouhamadou Ndiob ba muy ñaar fukki ak benn fi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké am mujj mu bokk ci ay collaborateur am di xaritam di mu saawiram foo gis sëñ Ibrahima Mbacké gis ko fa mu fonkoon ko lool loolu mooy tax am lu baax ñàkk a doyal lu baax waaye nga xool ni mu meloon ak Cheikh Saliou Mbacké nga xool ni mu meloon ak Cheikh Abdou Khadim Mbacké da ngay xool bisub ajjuma la gane adduna bisub ajjuma la génn adduna waaye ajjuma jéppiwu ko de yàlla ko tànnal ajjuma fu ko alxemes ba fekk mu gont fanaani Tuuba pës séefa googu ak dogo ngoo da ngay xool googu dogo ku dem ba imaamu tuubaa Tuuba bu Abdu Xaadir Mbakke nga xam ne saa yu yegsee rek moom daal dal yëg ci mihraab bi waaye bu xoolee gisu ko ak kaalab naar bi ak mbaxaram mbaxaram mbaxaram xonq bi su ko gisul rek faw mu nekk ko ndax xam na ne faw dana ñëw ndax la koy téye mën a ñëw su ko daloon bala moo ñëw ci jumaa ji ñu wax ko xam na ne dara du ngantam ci julli ji ñaan googee ba ko sëñ tubaa ñaanee wal tusbitan bi jamaatan tuqim asalaatu xamsata abad ya ci loxoom biir la dal fu ko alxames ma sa fekk même bi mu àndee ci tournéem Louga Kébé bi yoon woowu sëñ Abdou Lahad génnoon di ne seex yi bi muy wër en 1970 fu ñu ci mas a toll ba alxames jotee bu see lëg saabu dabi ko fa julli nga xam ni yow homme de principe nga say principe kenn du ko bafoué fi nga teg sa tànk kenn kenn mënu ko fàtte taxate ba loolu sëñ Masamba seere la ko ku miin dëkk bii bi mu fi nekk miin nga mu jullee la ci jiite la ci jumaa ji jekk jumaa ji te bu jullee ba noppi fi lay nekk ba jant fenk fi lay nekk ba jant bi ne dang mu door a ngàbb kurusam ga am na ko yàlla bindi ak nam mel dugg ci biir këram bi lu màggal bari bari bari mbooloo lu rand gudd gudd gudd bu ñu noddee mu dagg rang bi dem ci jàkka ji julli ji loolu moom laa ko gisaat mu daan ko def ci kilifa yi fu mu mas a fanaan ci àdduna ci jàkka ji jullee di ko dénk ak njabootam bu mu taalibeem faatoo ca ba mu koy man ba mu tëreegul mooy diggal boppam ba ci armée bi julleel ko boppam ñaanal ko taxawu joxe bisub ñaan nga dem fa mbaa mu yeble fa lu ko war ci mbokk lu ko war ci am na ci sax loo xam boo ko doon wax naa am sax du ko fàttali ko sëñ Isma Mbàkke bi mu doonee xalifa maam Mor Jaara ñëw na fii sëñ Isma ba mu dikkee dana ko man sax bokkuma ci ñuy dem ndax man li sax xawma ko waaye yow da ngay mbokk moo xam ne nii foo nekk say bokk fekk la ko alaaji sëñ tàkk doon sëñ gaawaan moo nekkoon ca gaawaan gaawaan daa dani ko Mouhamad ñun ñëpp yaalu man kenn ku nekk suñu am na lu doone ci bàyyi ba mu des yow yow loo am yaa ko fagul sa bopp kooku ay bokkam dañ koo loo won ndax dafa amoon bëstéef dafa saxoon ci lu baax dawaamu alayha la amoon lu mu mas a def da koy def rek du jàpp dara ba yàgg mu bàyyi ko nitu qualité nga koo xam ne kii képp ku muy sa bàyyi wala muy sa maam wala nga boo doon ci dara amoo looy ci kenn am nga roy téef am nga idole am nga modèle am nga jëmm joo xam ne ji réew mépp a ko bokkoon patriarche la woon nit ku mag la woon dafa boole woon ouverture ak enracinement kooku faaw mu am développement ubbi ko woon na ci ñëpp waaye xamoon na boppam am fu mu teg boppam nangu woon na ak jaxasoo waaye mus sa nangu kenn ku sopp ci moom dara ku ko mas miin am na loo dolli ko ci moom am na loo jële ci moom loolu nag macha allah def na ko ci ak njabootam yàlla dogal na xawma ci ak ak njabootam koo xam da nga dem ci mu yarloo ko keneen li ci ëpp moo leen yaral boppam waaye yar na leen ci jom ak bëgg sëñ Tuubaa ak am diine lu doomi sëñ Mouhamad ak jombe tuuti tuuti tuuti borom diine la mu war a xam yar na leen tam social mu sawtul al ijtima sawratul ndax boo seetloo sax néewaana nga gis ci ñoom kenn ku ànd lu ci ëpp da nga leen di gis fu ñu nem da nga doon ñaar ba ñett ñu te loolu lépp ay ishaara la loolu lépp am njàngale la ñoom ñëpp xamante amul kenn koo xam ne kii nekk nga tabu ci sa moroom ñoom ñëpp ñu bëggante xamante bëgg mbokk bëgg yoonu sëñ Tuubaa yi di ay taalibe lu xew ci yoonu sëñ Tuubaa yi ci bokk yi boo fa ne jàng gis fan bokk ci waa kër sëñ Mouhamadou mbokk taalibe yi réussir yombul. réussir au jour le jour la ko nit ñi am saa yoo xëyee sëpp say tànk na nga annulé loo amoon démb loo defoon démb loo mënoon démb fàtte ko xamal ni tey rek la tey di ko sëñ Fallou Mbacké waxee ndax démb wéy na te ëllëg xamoo sa wàll ñu cee njëkk saa yu jant fekkee rek parce que yéene jant bi yóbbaale la sa ngërëm tey itam na nga nangoo jaxasoo nangoo jaxase nangoo lépp lu baax nga dugal ci sa lu baax lu ne nga di ko def bul sax rek ci benn fenn déedéet boo dee jàngkatu alxuraan itam dee ci boole xasaay sëñ Mahmadou doon doon doon yor-yor laa jàng alxuraan waaye tàkkusaan day jàng xasaay fonk ma lu bi lool fonk bisub sëñ Tuubaa moo tax yàlla defal ko loo xam ne lii bisub àjjuma la fi fukki fan ak benn ak benn ci weeru ak weeru safar bis ba yooyu yëpp daf ko daan dundal bëgg gàmmu bëgg màggal bëgg xasida bëgg alxuraan bëgg sëñ Tuuba fonk ndigal bañ lu bon bëgg lu baax te xam lu baax nanu fës yéene jàngaat suñu mag ñi jàng te mbay ci wóom kër gu ne yàlla def na fa koo xam ne kii bu ñëpp xoolee ci moom yàlla dana xolam sa sedd ca waa kër ndax yàlla defoon ne ci moom la bëggoon lépp waaye sëñ Mahamadou jox na bu ëllëgee la ko Cheikh Abdou Khadir Mbacke seere woon rek doy na sëkk ba mu ne sëñ Jili yow day ana sëñ bi mu ne ko ma nga fa mu ko yow de xaw ma ku sagalul bàyyi waaye yow de sa bàyyi sagal na bàyyi sëñ bi sagal sa bàyyi baax na de ndax doom dafa sori ci xolu bàyyi doom dong nga yéene gën laa gudd fan doom dong nga yéene mu la te koo xam ne kii sëñ ma sàmm nga defut nawle man ngaa bañ a mel ni moom de waaye nag man ngaa mel ni moom itam ndax yàlla kenn rek la sàkkoon koo xam ne kii kenn dootu melaat ni moom muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak sañ Touba sëñ Touba de mas na ni sëñ Mourou Moussa Mbakke Moustapha mu ne ko Mbakke mu ne ko man rek nga mënta gën man rek nga mënta gën ku dul man rek soo ko gënul ci yow la waaye man doom nga mënta gën motivation dafa am solo te kenn ku nekk. war ngaa xam ku lay motiver yàlla ko yàlla dolli ay leer te taas ci barkeem te kër sëñ Masamba gii yàlla yàlla bari seeni kem ndax nag ab taalibe rawaani sëriñam dafay jeexital ci moom man de yàgg naa ci lii may def te dootuma gone waaye musuma gis mukk benn taalibe sëñ Mouhamadou Jobe bu ñàkk jom wala mu ñàkk diine wala mu ñàkk wëllëre wala muy fo wala muy caaxaan wala mu wala mu bokk si ñun koo ci gis li ci ëpp c'est une personne intègre nit ku way la te nit gis nit ku dari na fam di way moo gën a yomb gis nit ku way li ci ëpp ñi ma ci xam kenn ku ci nekk homme de qualité la kenn ku ci nekk un homme te loolu lépp ci sëñ Mouhamadou Ndiobé rek lañ ko royee te loolu lépp itam dafa bokk ci sëñ Massamba sëñ Massamba ñi ko mag yabuñu ko ñun mag yabuñu nekk na fekk doomi sëñ Tuubaa yi di doxee ñetti tànk tànk bu njëkk bi mooy man de sëñ Tuubaa sama mag noo bokk bàyyi mag dama ba ma maa jur ay doomam mag ma def waaye tas naa yéene mel ni rakkam yépp muy benn tànk daa dox ba de sëñ Tuubaa mi sama mag waaye sama bàyyi ndax maag doomam yee maa seeta xaw ma ko jur sëñ Mbàkke moo tax li ma jur su ma dajoon ak moom duma ko xam kon dinaa ko def ni bàyyi dinaa ko liggéeyal ba mu gërëm mën seet Mustafaa daa dox ni ma de sëñ Bàmba mi sama mag sama bàyyi waaye saaf sëriñ la ci moom daa jëkk amee sëriñ damaa jébbul ci moom kon dinaa ko liggéeyal ni ko Seydou Fall di liggéeyal ba mu ma ñàkk si tànk yëpp sëñ sëñ sëñ Masamba doxee na ko kër Sëñ Tuubaa ba am yëpp ci ngërëm yooyu yàlla na yàlla tas si barkeel yàlla nañ si si dégg si déwén yàlla na jàmm yokk bii ni ma ko waxee woon moo ko sosoloon boppam ci nekkam bari na ko ñuy ñaanal ginnaawam dañoo nekk ba mu noppi fee nekk mu di ko def ko doon defal boppam ci sant Serigne Touba di ci sant Serigne Massamba di leen ci ñaanal di ci def ay teraanga bis bi bu masaana yegsi ba bi muy màggee dana dana tabe ci jëmmam ji ñëpp di ko gis di ko siyaar daana toog fii ci buntu kër gi ba ba onze fukki waxtu ak benn bëgg a jot te day jógee ca jàkkee rek di toog fii boo ko nuyoo mu fay la boo waxee mu tontu la boo dee laaj mu jox doonoon jëpp joo xam ne ji kenn rek foo ma sa fekk njabootu sëñ Tuubaa gi di ko waxtaane rek di ko yu kawe rek mu sa daj mu sa am dara ci suufe yor na doomi sëñ Tuubaa yor na doomi doomi sëñ Tuubaa yori bokkam tabax na juma sañ ci na dëkk na ay teen gas na forage lu nit ki mas def ci adduna gàddaay na lu ne def na ko ba yowmal xiyaamate fu yàlla fay saxaaba ya fay murid saadix la woon julli xaqan la woon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer